ñu ngi ñëkk ñaan nañu fexe ba taxawal conseil supérieur boo xam ni benn ndaje la te nekk ci loi bi war nañ ko am at bu nekk ñu taxawal ko pour 2024 pour ñëpp ñuy waxtaan ci mbir mbéy sàmm napp mun toog ak autorité yi buur xool li ñu ci def ak li ñu ci namm def ak li ñu ci war améliorer ci lool benn jumtuwaay boo xam ni bee moom mooy jumtuwaay joxe xaalis koppoor dañu bëggoon ñu gën woyfal effectivement li ñu koy defee décret beneen décret boo xam ni mooy ngay toppatoo li ñuy wax protection sociale xam ngeen si réew mi kuy béy kuy sàmm ba tey ñu retraite pour ñu gàttal wax bi rek te loolu dafa war am te pour ñu am il faut ñu organiser ko te luwaat bi dafa prévoir ban anam la ñu war daar ba am def ko li ñaan mooy nañu ko appliqué ñu fexe ba si financement bi boo gën yombal effectivement teguwaay bi teguwaay bi ñu fexe ba ku koy jël mu ngi joxe juróom mooy 5 pour cent 7 virgule 55 bi ñu nekk loo xam ni dañ leen koy bonifier ñu fexe ba xale yu nekk si kër yi te di liggéey si mbéy sàmm te ñu ngi foofu déjà ñu fexe ba jàppale leen ba ñu nekk effectivement ñu créer seen emploi mu nekk gën durable beneen bi bu ñu ñaxtu. fexe ba réforme foncière bu ñuy wax ci réew mi te ñu ngi ko def def na ëpp na ñaar fukk at ñu fexe ba jeexal ko mais suñ koy jeexal mu nekk njëriñ effectivement ñuy béy sàmm nappkat ñu nekk ci àll bi di ci dund.